ñu dem ah ayca ba tey ci combat bi nga xamante ni euh, mënut a ñàkk ba tey ci li nga xamante ni mooy le 11 août ànd seek Ablaye Diakhaté ak waa Jender production maa ngi ak caatu ñaay bi maa ngi ak euh, bébé bébé Thiandoum waaw ñu nekk tamit ñoom ñaar ay xale ñu boole leen ci journée bi nga xamante ni àdduna yëpp ñu ngi koy waxtaanee bébé Thiandoum ma bàyyi la ak nga nuyoo. àdduna nuyu tamit ak sa adversaire te dañ leen woo pour ngeen présenté wu rek ñu xam ne combat bi euh, taxaw na à travers Tender Production. waaw euh, salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp nuyu nuyu sama ñaar waajur nuyu sama papa sama yaay ak sama waa famille ñëpp suñu limee damay juum ak sama booy ñoom Mourou Fall ñoom Pod gaa yëpp waaw nuyu seex ak sama waa Ikiri Kos Alas Kos Mbis Kosu Soase boo yëpp su ma limee damay juum. ak sama tur eh, maa man Okal eh, Okal Père Ndiaga Sarr. ah foofu laa nekk. ok waaw. doo nuyu Sarr sax ragal kii ragal moo ko kii jour mooy bàyyi la 11h. Hmm. jaru yàkkamti. yaa wax loolu waaw. li mu wax. mais ñu bàyyi la nga nuyu mbokku internet yi tey dañ leen indi rek pour ngeen présenté wu seen mbokk xam ne combat bi taxaw na à travers Diender production le 11 août arène nationale. waaw du nuyu képp ku fi taxaw du nuyu suñ ñaari waajur du ko ñaanal jàmm du ko ñaanal suñ bopp ba jour ba waaw di ko wax ne moom na waaj ak ay mbokkam te xam na lu mu def bu jour ba daanu hmm. moo ko jàpp si weewu tàng ba si catu karaw jéele lay doon hmm. waaw di si woon ak waa yoof hmm. si woo waa ñaay waa tongoor mengeen ngapparu daagu daan waaw di si woo ñëpp daal. Mm-hmm. waaw na ñëpp pare combat bi te xam ne combat bi. Mm-hmm. combat caatu ñaabi la. sa mm-hmm. fu ñu ko jàppee fu ñu ko téye rek. jël lay doon ah sa waay daa baadu wax. il faut moo ko jàpp si weewu tànk ba si catu karaw jël lay doon. weewu tànk si catu karaw nee wallaay taa dafa tiit barke daa tiit. dafa tiit wallaay taa daa tiit kii. kii ñu may kontaan ñu ko pour doole foofu. kii kontaan ñoom ñoom ñoom gars yi kii champion bi toog toog ñoom ñëpp may kontaan ak ñoom. Mm. ay poids lu ñoom gàddaay ñoom ñëpp ñoo ko pour doole fuuf. Mm. kii saa mm. man man gars dañ maa kéré pour roi des arènes de. mais yàlla maa kéré pour roi des arènes ki jóg. ba jour combat bi. ba jour combat bi waaw. nee na ñi rek. bu yemoon ci ñi muy waxal ne tànguñu ay caatu yoo ñuy fëlee. Hmm. ay ñoom Modja ñoom Dubun Junior. ñoom ngay kontaan ñoom Thiopi. Hmm. ñoom Mbër Ngewal. kon booy bi du fa feeñ. kon booy bi fii moo neex rek mu taxaw di wax kii fu ñu ko jàppee. leneen lay wax géejawaay tànguñu. Hmm. ñun jaspara lañ dëkk joo yoo fi géej. waa géejawaay ñoo ko indi. ñun tefes lañ yaroo lañ juddoo lañ màggee. kon mënuñoo doon ragal. kon kii buy wax ni maajee neex rek muy teg lu ko neex. fii bu ñu ko jàppee leneen lay waxaat. waaye ñoo la gën a soxla rek waaye ñun dañ sonn rek dañ xooslu ba sonn buñ la jàppee nga xam ne yow pare woo. Ah, wallaay wallaay kii li muy wax ni yëngal ma saa kuy kontaan ak ñoom njaga doole njaga doole ñun ñoo kuy kontaan ak ñoom kii war ma jaaxal hmm. wallaay tam maa ngi nuyu sama mère Fade Der gis naa lu lu may jox moo may jox sax du ndékk moo may jox sax du reer. maa ngi koy sant bu baax ko gërëm tamit. Mm-hmm. waa koñ ñu mu lim lu muy juum. Mm-hmm. xale waa xale cité ñun ñëpp waa mm-hmm. Kutaal. Kaolack ñun ñëpp maa ngi nuyu gars yi. est-ce que xam nga caatu ñaay bi avant ngay dugg kii ñu may contact àll bi ko bu dool fuuf même mbappati chaque jour. wallaay taal ba jour combat bi. ba jour combat bi. kenn mu koy door door bu daanu. mu koy door bu daanu. wallaay taala barki yàlla. cànn da lay dóor mu daanu. moom koy jox. càndum deux moom a jox lapataan mu dóor mu daanu. turandoo wallaay taala barki wallaay. laa ilaaha illallah. la. lan kii liggéeyul yaram bi boo ko xoolee xam ne biri biri la. fi bu neexee nga taxaw sa maaj di wax mais buñ jàkkaarloo ngay xam ne gaynde gi moo taxaw. booy dalal jaamu rek. gaa la gën a soxla rek instant dañuy mbëkk ñun xooluñu la sax baaxuñu la maan sax. Hmm? dañuy mbëkk. ah nee na xeex bi daal pare na ci yow est-ce pare nga pour xeex nga. kii bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko. maa ko gën a kii dama koy tàggat. Eh. dama fas bu ndaw koy wulee bu ma ko hmm. xam nga tàggat. xam naa xam naa di tàggat. Hmm. man si àll bi dëkk. Hmm. xam naa di tàggat bu waaye kii mënu ma tàggat. xam su ne moom ëpp doole sax ñu mën a wax ëpp doole ah ëpp ëpp ma lépp. kii saa ëpp. kii waxal la kii lan la mu ëpp la kii lu mu ëpp. booy roose ñuy naan moo leen di naan dara. gaa daa am ay business ñuy jël moom la ñuy tëmbal. wallaay musuma naan dara. barki yàlla kii musuma naan dara. kii man suba ngoon may entraînement man ma dara entraînement la ñu sant tëdd nelaw. kii jaaxaluma sax. ñun yoof lañ dëkk da ngay judd doon booy bu ndaw di fooy si tefes bi di bëre ba ñaaw kon ñun buñ bërewul dañ ñuy tooy. nga dëkk géejawaay par dëkk Kaolack xam foo sax du ngay mbapat. waaw nga ñëw dëkkaat a fii. Mhm. géej bi zéro mètre. Hmm. école bi zéro hmm. na solo xam ne dajul xoolal kanam bi <laughs> kanamu français bi yow booy dajoo dara. ma yaa neex rek ngay talamoon li ma jaaxal mooy combat yi ku ñëw rek. iri ku ñëw da nga naan làmb bii moo dàkk parce que boo xoolee niñ xas-xas loo nga xam ni xale yi dañoo yàqamtu bis bi. mais ndànk rek ndax nee naa la looy bañ mu ñëw bu ko jàppal bis le 11 août arène nationale ak Diender production dina neex dina yëngu. dañ lay bàyyi nga waaw. déglu Idi waaw. kii dama ko lekk mu koy lekk. moom nga xam ne mbapat lay toog. su ma naa war sama vidéo. man non man lu eh. ma vidéo yi moo mbapat ampag àll bi moom mbapat ampagay. gànjaay Fatick yow damay dem foofu boo nee nga laaj rajo xam nga raja rajaxe rajaxe rajaxe kër Fodé. wala laay taan nga laaj ko. wallaay rajo dëmb woon na ñëwal mbapat si àll bi man saa man man man maa juddoot bëre kii war ma jaaxal waru laa jaaxal barki yàlla may mbapat chaque jour pare dama woon sama benn vidéo mhm. xool maa final jour boobu ko trois ko cinq cent mille li ñu tegoon jour boobu passoir xam nga passoir waaw foofu laa fay na hmm. man a benn benn mbër benn séeréer nee dama koy nëbbu nee ko dama koy nëbbu ndax adversaire bi mi ngi taxaw dégg nga li mu wax ak fi mu jaar ak ci mbappat yi su ko defee nga tàggatoo woo say mbokk ndax combat yi li ci des bari na leen indi rek pour présenter leen waaw mënul ñàkk maa ngi nuyu sama yaay moto bu baax pour présenter leen amateur yi xam ne combat bi taxaw na le 11 août ci arène nationale waaw laamu ji ñu siy woo waa Yoff yëpp di si woo ñëpp na làmb ji làmb yoof la di si woo waa ñaaba di si woo tongoor mengeen ngaparu naat daagu daan xurwa waaw na ñëpp génn di wax làmb ji làmb yoof la làmb dëkk wërngal la ko waa waaw nañ génn seen doom xam na moo ayeeku waaw waaw ñu ñaan yàlla tamit waaw ñu si woo ay Babacar Palaas ba waaw mooy borom ripaas beeg waaw yeneen yi loo lu mu jaayal baaxul waaw mu ñëw jàpp si combat bi di si woo ñu ñëpp ku dëkk yoof waaw ñu ngi la si woo si làmb ji. Mm-hmm. waaw ngi wàcc côté mobilisation. waaw loolu biti la fanaan loolu. waaw waxatuñ loolu. waxatuñ loolu ñun bu ñuy dem bu ñuy dox di dem sax mbooloo mi dañuy topp. dëgg la fu ñuy liggéey sax mbooloo mi dañuy topp loolu borom bi moo ñu ko defal te demaguñ fen jërëjëf waaw. Mm-hmm. am na solo caat boo déggee li mu wax nga xam ne mi ngi waaj li mu wax dégg nga ko dañ lay bàyyi nga tàggatoo ndax tey leneen leen indi pour présenter leen des na yeneen i combat yoo xam ni ak yeneen i jàkkaarloo ñu waxtaanee ko biir. waaw baax man maa ngi nuyu waa Guédiawaye pour ñu jàpp si combat bu baax Kaolack Koutal Ndiaffate Séeréer Ndiaffate Bambara. Thiawanda Kër Mar Kumbal ñu ñoom pour ñu ñëw jàpp si combat bi waaw seen doom mooy génn pour ñu jàpp si bu baax a baax. barki yàlla kii lu ma koy dóor ma koy daan lu ma koy dóor ma koy daan ñu ni yàgg bawul dara waaw nuy waa sama booy dem dañoo sonn si man mel ni Modou Fall Paul Babacar Daabo waa waa bitig ba waa terrain basket bi waa waa waa Paris ñoom ñëpp ma limee muy juum ak Cheikh sama joueur bu mag bi kii grand joueur ma koy ñaan mu gudd fan am wér gu yaram ak maire mm. Fader Papa Ousmane kii kii joueur bu mag la. am na solo waaw maa ngi nuyu gars yi su ma limee may juum. Mhm. waaw xam xel moom yaa ma noonu day fàttu. maa ngi nuyu Bas Ndiol sama waa équipe yi ñun ñëpp. équipe mhm. Père Ndiaga Sarr su ma limee may juum. Mhm. kës Alaas kës Mbiis. kës Nokos bu mag ñun ñëpp. su ma limee may juum waa Okol bi ñun ñëpp ku ñu jàpp si combat bu baax a baax. ak Ndiago Doole Thiandoum 2 ñun ñëpp waaw. amna solo ñaara xale yi dégg li wax kon dañ leen di joxat euh, ba tey rendez-vous rek ci ak gender production di leen ko topal lepp lu jëm ci walu lamb le 11 août arène nationale. dina neex dina yëngu gaay di waaw xaw maa ñu sama yaay nek amiri dem bu ñu jàpp ci combat sama yaay dafa son ci man. jërëjëf nekkul Sénégal amiri la nek mm-hmm. ni sama yaay bi nek kaw la dem a sama papa ñu ñëpp sama wa famille su ma may juum ñoom ñëpp. Mm-hmm. a boy Dakar rem boy Dakar grand boy Dakar grand Dakar rem ñu jàpp ci combat ko sama ko sama mag la ko ñoo bok ben dret sama booy la. <laughs> wallaay taala boo Dakar sama grand la ñu ngi jàpp si combat bi ak boo Dakar boo Dakar numéro 2 tam ñëpp. jërëjëf su ma limee juum. am na solo. waaw ah. ayca ngi noonu jërëjëf mbokk internet yi.